salaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ñu dellusi ak yéen rek ba tey ci li nga xamante ni mooy naafila guddi gi euh, guddik tey gi nag yemoo ak li nga xamante ni mooy ñaar fukkeeli guddi ak juróom-ñett ci weeru koor naafila bi ñeenti rakkan la kon day di nekk ci ñaari sëlmal rakkan bu ci nekk da ngay jàng fatiha benn yoon jàng wa tiini wa zaytuun benn yoon jàng qul yaay hel kaafiruun benn yoon daal di jàng itam qul huwallahu ahad juróomi yoon su ko defee noonu nga koy toppalantee ba nga am ñeenti rakkan yi bu ko defee boo demee ba pare ba def ñeenti rakkan yooyu ba pare nga wax astaghfirullahi nga wax ko cent fois waaye tamit nga daal di wax allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim nga wax ko itam cent fois bokk na ci ngëneel yi ci ne ku ko def borom bi mën na la jéggal say bàkkaar yi nga amee ak yi nga xam ni sax ñëwaguñu kon nag du ñu def lenn lu dul di ñaan buur bi dara tëwul yàlla na ñu yàlla nangul suñu koor waaye itam ñu leen di ñaanal uh, kooru jàmm